السلام عليكم ورحمة الله بقي ينجلد ني ديلن زيارة لنبال حق ديلن بال نبرم بسبحانه وتعالى مبول يجقا يوتي المسألة رقم الثالث عشرة من الماء المتغير بقراره فإذا تغير الماء بالأرض التي هو مستقر بها أو التي يمر بها وكان بها ملح أو كبريت أو نحاس أو حمأة أو غير ذلك فإن ذلك لا يؤثر في طهورية الماء سواء تغير بذلك الماء أو صنع منه إناء فتغير منه الماء فلا يخرجه ذلك عن طهوريته الله أعلى وأعلم مثلا màndarga yi fukk ak من mu ne تلقى bu موي يجب te يجب تي بلاس بي mo xam place bi place xorom la wala or wala perum, wala ban su dukotere du ko téré laab wala mu soppiku ci ndab lo xamni matière yooyu lañu ko defare su boba it labna yalla moy ki kawé ta xam lepp daf ñuy jàngal batay ñu ngi ci ndox batay ndox mo xamni labna te mëna labal moy lañu tuddé ndox mu ñu boyal mooy maa mutlaq comme niñ ko jànge won ci durus yu ñëk ya ndox mi li ko soppi moy dafa nekk ci place bi yagg fa lool wala place bi nekk place xorom loolu soppi ko yagg bi yagg ci place xorom bi place bi di place or yagg bi mu fa yagg soppi ko manam matière yoyu soppi ndox mi wala place bi di place përëm yagg bi mu fa yagg matière bi soppi ndox mi wala place bi di place ban yag bi mu fa yag ban bi soppi ndox mi su baba ndox moomu eh, laab na tamanna laabal wala ndox mi ngi def ko ci ndab lo xamne ndab li or lañ ko defare wala ñu defale ko përëm wala ñu defare ko ban matière yoy ñu ko defare biñu dug biñ ci sottee ndox mi mo xam wala den ndox mi jël couleuru couleuru matière bi maanaam couleur ndaa loo xam ne or lañ ko defaree ndox mi jël couleuru or bi wala mu jël couleuru përëm bi wala mu jël couleuru euh, ban bi su boobaa ndox loola ndox mooma laab na loolu mooy suñu darsu tey incha allah ku ci am lu muy laaj mën na bind commentaire ci chaîne Aïnou Madhi TV incha allah dinañ ko tontu bu fekkee ne ko dinañ te am jot dañ ko tontu incha allah qul qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh